asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo koy defal en wolof tay bi nag euh, vidéo courrier AdSense la comme ni ngeen ko xamee mais wala ñu ñëw ci courrier AdSense yi euh, am promo boo xam ni defaat nañ ko ci microphone yi euh, parce que dafa am ñu ñu ko doon laaj promo bi ñu ci defoon <laughs> am ñu ñu wax dafa comme comme sénégal yi ni ñu defee dernière minute ni dafa gàtt mais buñ ko mënoon a defaat ci màggal gi dina baax léegi defaat nañ promo màggal fii ba màggal gi des deux jours ku ko soxla micro bi 15 bi dañ la koy jaay voilà muy promo màggal Touba 2024 voilà su màggal gi desee deux jours nag la promotion bi di jeex voilà parce que jour màggal ak bu ñu nee suba la màggal moom livraison yi day compliqué voilà ñu bàyyi ko xel. léegi kurée euh, yi fi ñëw avant ñëw ci courrier tam am na loo xam ne tam peut-être bëggoon nañ ko waxtaan ak suñu <laughs> raq yi nga xam ne ay jeunes youtubeurs lañ euh, ci coow loo xam ne amoon na ci semaine bi. Euh, mun naa ne ci semaine bi sax wala semaine bi passé rek voilà muy lu jëmoon ci euh, li nga xamante ni mooy euh, affaire voile yeeg yu demee noonu voilà xam naa di leen di di di fàttali suñu bopp di leen fàttali tamit rek mooy dafa am sujet yoo xam ne ay sujet sensible yoo xam ne bu amee ku ci mënta bañ a wax nga am sa responsabilité moo laaj nga wax si soo ciy wax da ngay xam ni nga ciy waxee loolu dafa am solo parce que mën nga yor sa seen YouTube di def information mais du lu ñëw comme information rek nga jàllale ko nu mu la neexee du tamit euh, lu am comme si dëkk bi comme coow actualité wala politique wala buzz wala dara rek nga ñëw maanaam ñëw rek wax ci yow ni nga ko xalaatee voilà parce que xel doomu aadama li ciy traversé ci ay xalaat dafa bari su benn problème amee euh, si si tàng-tàng bi sa xel dafa am nu muy lu mu ciy xalaat loolu des fois nag su fekkee yow amoo retenu ak wala nga am euh, yi nga xamante ni mooy sagesse bu bu xaw a am solo. ci tàng tàng bi nga réagir boo moytul rek boo demee tuuti après da nga gis da def njuumte <laughs> da nga gis def nga erreur moo tax réaction à chaud baaxut su dara amee li gën mooy euh, nga bañ ci ré nga bañ ci def réaction boo xam ne dangaa ngaa mer même réagir ci mer tamit baaxul parce que boo meree toujours ki la loo sooy wax lu ko blessé ngay jéem a wax su boobaa doo toog pour defar rawatina nag su fekkee da ngay yëngatu ci diine bañ xamee la nitu diine. Euh, moo xam nga nekk euh, imam moo xam nga nekk euh, abbé lu mu ci mën nekk nitu diine nga situation bu mun munti am ci réew mi rek bala nga cee wax da nga war a def recul am retenue utiliser sagesse pour mën ci wax sinon rek boo ci waxee da ngay wax a mer te comme <laughs> nitu diine toujours ñooy ñooy ñuy wax ñun maanaam nit bu meree seytaane mooy nekk ci mooy dugg ci moom su waxee tàng-tàng bi rek boo ma li muy wax dina nekk dina nekk lu garaaw bu la fekkee nga taxaw rek ñoo saa sam loolu la digle bu la fekkee da ngaa fekk nga taxaw na nga toog bu la fekkee da ngaa fekk nga toog na nga tëdd soo meree na nga naan ndox voilà te na nga bañ a wax voilà ba mer bi giif bu mer bi giifee boo moytul booy wax di nga wax joo xam ni wax ju joo xam ne xel da koy mën a déggle mais boo defee réaction à chaud rek soo moytul euh, yokk ci xaanu karaw léegi nag ñun youtubeurs yi tamit ñu si bàyyi xel comme tamit ñu si bëri suñu dañuy euh, suivre actualité su dara amee dañ ciy def vidéo wax ci seen xalaat wala ñu partager waat li nga xam ne moom lañ ciy wax ñuy bàyyi xel loolu affaire ngëm-ngëm dafa dafa dafa yéeme te dafa dafa dafa nekk loo xam ne ci nit mun na puus nit mu dafay affaire yu baree baree bari moo tax loolu nag du loo xam ne maanaam euh, nit nit da siy waxee nu mu ko neexee voilà euh, man gis naa ni c'est mon point de vue personnel gis naa ni coow yëpp jar ko euh, coow li ko indi mooy peut-être xëy na Sonko li mu dafa dafa préciser wul fond wu pensée mais jàpp naa ni koo xam ni danga danga da da ngaa man da nga mën a liir entre les lignes ngay mën a xam ngay mën a jële lu ñu la waxul te ba pare ngay rafet njort tam suñu di waxee ngay rafet njort lu baax la ci bëgg a wax di nga xam ni Sonko waxul ak euh, église waxul ak <laughs> école yi doon tere fii rek muuru Sonko ñu mu doon wax dëgg dëgg dëgg dëgg waaw France la man bi ma ma déglu wax ji bu baax a baax Sonko question bi ko élève bi posé mu si doon tontu message bi mu lancé français yi la bëgg wax ni seen réew yéen a fay doxal loo xam ne teguwul ci benn yoon mais terewul yéen a ngi koy doxal seen réew donte da ngeen di woote ne seen dëkk dëkku liberté la mais yéen a ngi fay def loo xam ne dafa contre liberté waa nag sañ ngeen ko parce que seen réew la <laughs> ñun fii suñu réew nag duñu ñu lool loolu di fi am voilà loolu moo nekk ci message bi kon loolu gouvernement France la nga xam ni tëral nañ ko France tere ñi nga xam dañuy muuru pour du ñu du ñu dugg ci école publique yi parce que école dañ fay tere muuraay loolu ña nga ña ko imposé France mooy même personne yi nga xamante ni ñoom ñoo fexe ba tàqale maanaam diine catholique ñoo ko jële ci mbiri France même personne yi la waaw ñooñ du waa église ba même personne yi la mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy gëm affaire wu maanaam laïcité dëggantaan gëm ni diine yoonam nekkul ci dundu doomu aadama diine daal su ko nit ñi mënta bañ a def tamit ku koy def na nga dugg ci ruq def ko mais yëfu société bi li ñuy doxal yoonu diine newu ci ñooñ ñoo créé lay laïcité ñooñu nag bi ñu créé laïcité ñoo fexe ba jël yëpp séparé ko wan ni lépp lu jëm ci comme comme école publique laïque la ñu wax école nekk France muy suñu école yi donte ñun xaw nañ ko dëppaleeg suñu mbir tuuti mais ba léegi des na école euh, publique bi laïque bi maanaam mooy école boo xam ne gouvernement moo ko géré daree diine dootu fa bokk léegi ñooñ nag. suñu tere ay voile ci seeni école loolu en même temps li ñu tere voile daanaka yàlla luy xeexaale diine jullit la di xeexaale diine catholique parce que ñi gën a baax ci catholique yi ci nekk ay jigéen dañuy muur muy sœurs yi voilà sœurs yi mooy excellence ci maanaam suy jigéen ñu ñu sàmm ñu gën a yiw ci diine catholique mooy sœurs yi te sœurs yi dañuy muuru voilà kon di kon église mënut a tere muuraay loolu amul logique Sonko waxuloon ak <laughs> église bi waxul ak catholique yi. Sonko waaw France la doon waxal seen rek te lu tax Sonko waxal waa France foofu ba léegi tamit xam affaire ni muy tëddee dafa baax muy école bi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a metti ci wàllum tere muuraay fii xam nga kañ lañ commencé tere muuraay bi ñu ko commencé tere France te école boobu waa France ñoo ko contrôlé fii la nekk Dakar muy gendarme bi ngeen di dégg école boobu mun naa ni waa France ñoo koy contrôlé programme France lañ fay jàngale. bi waa France teree muuraay France lañ commencé ñoom it di bëgg bi ñu commencé indi ay problème France ci affaire muuraay lañ commencé ñoom it di indi ay problème muuraay ci seen école boobu parce que dañoo bëgg am cohérence bëgg dëppale seen mbir ak France te nekk Sénégal voilà loolu nag message bi waa école boobu ñoo ko moom ak waa gouvernement France wala ak mais pas église catholique bu Sénégal voilà loolu mooy rek précision yoo xam bëggoon nañ si def pour pour ñu si bëri si youtube yi am di peut-être dégg wax yi te duñ comprendre dëgg li nekk ci suuf ñu comprendre ko noonu yooyu nag après jarul indi ay politique poli polémique yoo xam ne polémique gu diine la euh, kenn ku nekk ci bëgg ay vues tax après <laughs> man gis naa ñoo xam sax dañuy def vidéo di ci xas Sonko <laughs> te Sonko li mu wax kenn yaa fekkee nag xoolal dañuy waxtaan wax dëgg rek ci la kenn par parloowul quoi man Sonko ànduma ak moom faraluma ak moom parce que dataan wax ay tooxi doona yu bëri yoo xam ne ànduma si déclaration yu bëri mu naan def ànduma si parce que lu yee fitna laa ko jàppee woon moo tax ànduma si voilà ànduma woon mag Macky Sall ànduma ak Sonko Macky Sall lu bari lu mu def ci réew mi baaxut am na nag lu baax lu mu fi def tamit sonko yu bëri yu mu daan wax ma ànduma ci parce que danaan yee fitna looloy dëgg waane nag wax bi ñii ñu ko si attaqué vraiment ma dama gis ni ñi ko attaqué ñëpp ay nit ñu ko contre kase la mais teguñu ko ci ay base yu yu solide teguñu ko tamit ci loo xamante ni lu jara lu jara lu jara contre nit ki la quoi voilà te nit tamit wax dëgg yàlla boo koy contre di ko contre di ko contre yàlla xëy jël réew teg ci loxoom yaa xëy nga xam ne yàlla décidé na rek bu décidé nag da ngay accepté nangu dogal yàlla tam dafa bokk tam ci gëm yàlla tamit yaa xëyti voilà même boo opposé Sonko di ko contre mu xëy moom waa Pastef gagné réew mi Diomaye nekk président Sonko nekk premier ministre moom fekkee kat nit ku gëm yàlla daan ah man kat contrôle naa Sonko mais lii la yàlla dogal ànd naa ci suñu demee ba xëccoo jotaat cinq ans yi ñu xëccoowaat après boo baax nekk nga ko la ne xëccoowaat af dugal xel tuuti bañ di demee passion ak euh, contrante ak yu demee noonu parce que yooyu baaxul Sénégal dëkkam ndaw la boo xam ñëpp ay mbokk la catholique yi jullit yi ñëpp ay mbokk la voilà <laughs> dama dégg keroog benn waaye buy def benn vidéo naan dañoo war a génnee pulafu day nangam nangam ma ne sama xel moo sénégalais yi nekk bitim réew ñoo pulafu day nekk Sénégal bi léegi dëkk yooyu tam bu ñu nee nañ génne Europe bu génne ak États-Unis nañ génne Sénégalais yi delloo leen Sénégal ñu génne ñooñu ñëpp ñëw est-ce que dinañ xaj ci réew mi voilà maanaam àdduna dafa dépassé loolu ay ñii dañoo bëri fii ñii dañoo bëri fee affaire man sama école kenn dafa muuru sama école dañ fay muuru ay c'est ay nit ñu tardé rek ñooy ñooy xuloo ci loolu quoi parce que àdduna bi mi ngi ci beneen niveau mi ngi ci beneen niveau waaw <laughs> mi ngi ci beneen niveau mais buñ ñun dañuy tardeel ci ay détails yoo xam ni bu ko ñun africains yi ak ñun musulmans yi ñu nekk ci ay détails yoo xam ne ay détails terre à terre waaw di ci débat te fekk euh, am na yeneen yoo xam ñoo ëpp importance voilà yoo xam ni ci la ñu war di débat ci réew mi waaw mais malheureusement foofu la foofu la réew mu toll ko <laughs> foofu li gars wax foofu la réew mi toll xool yàlla dafa yéeme da xool euh, keroog dama toog may xalaat man yàlla daal yàlla xàkkim la ko wax dafa am euh, waa Pastef sax du ma dafa am parce que la waa Pastef dañ doon xeex système bi système bi fi nekkoon bi système bi ñu donnee ci tubaab yi mu ñëw ba ci Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall lépp yi lépp li mu doon doyee soo waa Pastef di ko xeex soo ko jomaay ñuy xeex système di xeex système di xeex système bi ba mu jékki-jékki rek yàlla jël système bi teg ko seen loxo léegi ñoom ñooy seefu système bi <laughs> xam ngay xeex mbir bu jékki-jékki ñoo ko tegg sa kaw loxo <laughs> léegi acca système bi nga doon xeex léegi acca système baa ngoog léegi Sonko mooy see ak Diomaye ñooy seefu système bi léegi te système bi lañ doon xeex rek pour wala xarañte yàlla quoi voilà gis nga moo tax yëf yi nañ ciy def attention daal surtout nag ñun youtubeurs yi bu ñuy partage ñu ci gën a boole di sóoraale li ñuy partage ak li ñuy dugal suñu chaîne yi muy bañ a yee fitna parce que baax na trop dañoo ay chaîne dañuy dugal continue producteur de contenu lañ pour monétiser mais bu ñu di partager ak di yokk ay affaires yoo xam ni day yee fitna parce que fitna day nelaw te yee ko benn njariñ te Sénégal ku fiy lor kenn nit tam defe ne ab jàmmul nga sa mbokk nga lor xam ko ak nga bañ ko xam waaw c'est ça la léegi bu ñëwee ci courrier AdSense yi euh, bi si jiitu mooy euh, Ibra Mbacke Ibra Mbacke sa courrier si ñëw na beneen bi si topp El bu jàlloo élage ati bu Atibou Diallo itam sa courrier ñëw na ñoom seen courrier parcelle lañ jaar xam naa si old school bi lañ def voilà ak góor Gora Diop Gora Diop yow tam sa courrier si ñëw na. ak Fatou Aydara Diouf Fatou Aydara Diouf yaram sa courrier AdSense ñëw loolu mooy courrier AdSense yi nga xam ne ñëw na fi kon ñu leen jox rendez-vous ba vidéo bi incha allah rabbi nga xam ne dinañ xam naa suba sax ñu reprendre vidéo ñu daan def Galsen Tube parce que bu ngeen seetloo <laughs> daanaka vidéo AdSense ñëpp luy dugg temps mais incha allah rabbi euh, suba samedi waaw dinañ reprendre programme AdSense yi moom incha allah def ñu boo xam ni waaw suba dinañ ko reprendre comme leen fàtte micro yi comme ni ma leen sànq am na promotion. réduction voilà wàññi nañ ko ba 15000 francs waaw livraison bi gratuite la fii ba màggal des ñaari fan bu màggal desee ñaari fan promotion bi jeex na voilà kon ñu xamanoo ko noonu di leen jox rendez bu ba vidéo bi di ñëw incha allahu rabbi jër ngeen jëf